xam nga de fois nga bokka nit ndey ak baay ñu wax ci ñoom ci wax ci wax ci moom lu amul te nga fekkee lépp da nga ciy noppi xam nga maa maa gënoon mën jàkkaarloo caméra yi mbaa benn site internet wax ci yaa ngi dégg mais xam nga mm, mm, euh, euh, weddi tuuma baax na mais weddi bu bari da gën a taqal dégg euh, moo tax moo tax yaa ma bëggul sax interview nii nii nii boo waxee mu ne yii baax na baax na merci parce que wax lii digal ko keneen copier ko te li ma gën a metti mooy commentaire yi parce que da da ngay gis ni ndeysaan da ngay da ngay da non am na xam sax yàlla leen bind rek ñoom dañuy ñoom ñoom xam naa ni ñàkkul ñu bon c'est pas mais dañu judd rek commencé commenter xam nga xam naa ne seen ngénte bëroon na commentaire trop parce que damay remarqué non non dama gis ne ñoo xamante ni dañuy toog seen kër waaw dugg nga dugg ne salaamaaleykum gars yi ci nga gis ku la dugg saaga la saaga bu rëy xanaa xamoo lu lu gën a garaaw mooy xanaa xamoo ñu la gis des fois ñi bindal tey bi titre tey tey ni tey benn Pape Jean nangam sangam wax ko lu garaaw yow mën na laa bañ a métti yow mi nekk à côté mais xam nga kan lay métti ki mu bokkal wala moom si boppam nga gis tey gis ku ko bind lu garaaw te mu réew ki ko bind mos koo gis xamu ko xamul fu mu juddoo xamul kenn ka moo tax des fois kuy bind lu ñaaw lu bon ci doomu aadama ki essayé ko ci sa sa sœur wala sa frère wala sa papa wala sa yaay nga xool boo ko ci essayé ba pare rek nga xool dafa xaw a doy waar moo tax nit ñi des fois du ñu bàyyi loolu xel trop nga gis des fois ku lu ko neex des fois gis tey ku toog kii nit a tudd nit saaga ko ndey ba mu saf sap xam nga ndeysaan nga xool yaayam toog di ko xool nii rakam toog doomam toog dégg ngay saaga papa wala saaga yaayam dafa doy waar xam moo tax euh, bon moo tax comme nag aussi léegi ñu ngi ci commencé jël ay mesures parce que du lépp la ñuy wax waaye ku fi def ay saaga yu mel noonu noonu xam nga bu ñu la wanee ne que lii dëgg ci lii nga nekk c'est pas du yoon bu ñu ko wanee kenn awakan ko kenn je pense que léegi affaire yi commencé wàññeeku parce que saaga du du du kii quoi te kenn du ko te kenn du ko gérer quoi man soo ma saaga fii ba ilaa yawmi din du ma la saaga dama lay bàyyi yàlla. ndaxte toroxal nit weesuwul waxuma na sax saaga nga nga nga bind ci moom lu garaaw xam nga c'est pas bon quoi nañuy xool ay ñun ay nit ay ay Sénégal lañu ay africain lañu loolu suñu maam yi amul woon léegi rek la internet xew bu njëkkoon yu bari xewul woon quoi donc internet boo ko ubbee lu wax yu bon di di di defal nit yu xamante ni amuloo benn preuve même boo amee preuve c'est c'est pas bon même boo amee preuve ni diw maa ko def c'est pas bon bu la yàlla ne tey boo gisee nit kuy njaalo wala nit kuy def nii yaa dégg balaa nga koy balaa ñu jàpp ne kii njaaloo la foog nga am ñeenti nit ñoo xamante ni ñoom ñooy seede te ku nekk bokkul fu mu jóge te kenn wawul sa morom nga xanaa yàlla moo gën a maandu mais pourquoi salaamaaleykum dégg naa diw rek salaamaaleykum dégg naa diw nangam sum xam ki ana preuve nga ne non euh, diw de moo ko kii euh, sama xama suñu benn site après moo ko relaté waat c'est pas bon est ce que xam nga am na vidéo yaa may xam ne du ma ko seetaan parce que damay bañ a xool ay ay ay ay ay kii xam nga yaa ma ñu bokk ndey ak baay maa topp ci moom moo nàmp jox ma ñoo bokk ndey ak baay. ok duma xool ay commentaire euh, parce que depuis boobu après damay comprendre quoi xam naa ne bu nekkoon ni tey ki koy saaga dafa taxaw saaga ko ni sama kanam dootu ko defate internet application bi moom lay téléchargé ah Sénégal sénégalais sénégal7.com lay téléchargé